asalaamaaleykum mbokki internet bu Guédiawaye info TV tey ñi ngi ak le coach Mame Less mu nekk le coach de l'équipe Parcelles Mbooloo nekk également ancien coach de l'équipe Rock Énergie mu nekk ndaanaanu làmb comme ni koy faral di waxee di ndaanaan bu làqu la parce que bëriwul muy génn ci média mais doon ko am ten tey saa yu àddee rek ay ay kàddoom day neex a taataan donc coach ñu bàyyi rek nga nuyoo présenté waa mbokki internet yi. salaamaaleykum salaamaaleykum suma waa famille maa ngi leen di gërëm di leen nuyu surtout leen di leen nuyu yéen dama di leen ñaanal jàmm surtout waaw. waaw kër suñu gis ni nekkoon nga écrire rock énergie donc nga am benn jaar jaar boo xam te ne amoon nga ko fa euh, ñu bëri aussi di ci posé wu question ni kër su aussi lan moo ko jëlee rock énergie ñu bëgg xam rek jaar jaar bi nan la demee ak rock sa diggante ak waa rock énergie. Euh, rock énergie bi ma fay jaar dama faa roote euh, yàlla baax na dama àndoon ak Garga ñu demoon rek énergie boobu dóor dóoraat sosoon na mais partellement maanaam melu woon amul amul woon melu woon ampleur bi mu mel nii actuellement ma doon ànd ak sama doom day suma xarit suma rakk garga mboose ñu daan dem rock énergie daan entraîné foofu yàlla baax na ma fekk fa pàmbay muy coach bu baax coach bu yéwén coach bu bu bu mar bu moom kenn xamut loo mën a wax ci moom daal bi ma àndee garga aussi euh, am nañ fa ay combat bari nañ fa ak Ibou faal bari nañ fa ak Njaaxum xam lépp man a garga ñooy ànd parce que garga foo ko mosaan gis suma oto nga koy gis suma kanam oto ba ñoom léeg-léeg oto yor sax di ko dawal ci bi dañu yaakaar ne gargaa moom ndax ni ma meloon ak moom euh, yàlla baax na ba bi loolu amee ma taataan ci Pambay xaw nàmp fa jàng fa xam ñu jóge fa nag jos sos écrit ñu tuddee écrit bu dóor dóoraat waaye gannaaw liñ naan looy wàlliyaan te mu am sa dëkk léegi magam ji ak mbokk yi nga xam ne ay mbokk séeréeram lañ ñëw ne ko sa mag munta am écurie nga nekk ci écurie jaamur ñëwal jàppale sa mag toog ci wetam loolu lu ñu jëlee rek énergie indi ñu dóor dóoraat waaw kër su loolu am na solo mu doon relation boo xamante ne aussi euh, jaar na ci sa diggante ak Garga Mbossé foofu rek laay def transition dugg ci nga xamante ne mooy Garga Mbossé parce que nekkoon na lutteur boo xamante ni mun naa ni il avait des débuts prometteurs ba ñuy doog a door doon na ay combat am da nga aborder avec la manière du taw ak adversaire ba au fur et ci carrière am nga euh, xam nga maanaam mbëri buñ la demee ba nga séen la liggéey bi ngay liggéey nekk au sérieux euh, nga am dañ la xaw a sóoraale xaw la may xel looloo tax combat garga di xaw a neex naqaree kale waaye du question am bañ am combat ak ñàkk am combat parce que des fois mbër boo gisee combat mi di xaw a yeex dañ naan la diw ak diw ak diw nga dem ba combat bay waaj a jàppale lu ñàkk fay da yàqu ay diw na ma yokkal nangam ndax diw nii la il faut dama koy préparer loolu moo tax combat mbër yu bëri seen combat di yéex a jàppandi waaye normalement euh, garga du mbër moo xam ne sax at mu ne war naa toog te bëriwul ñaari combat am na ñu bari sax ñuy faral di wax ni dafa dafa dese am safara tey ci biir géew. non xam nga làmb ji mooy li ma wax rek loo ci gis discipline da cee bokk te ku xam Garga Mbossé xam ne ku discipliné la ku xam Garga Mbossé xam ne mosoo ko dégg ci benn coow ndax man li ma wax ci nit ki rek bëgg naa mooy wax ci nit ki muy lu ma xam te Garga Mbossé dama koo xam ñu yàgg a ràmpe yàgg a ànd mbapat sama oto la daan dugg ba ni muy duggee arène sama oto la ba ni muy bëreeg Saalum Saalum sama oto ba ni muy bëreeg les deux ñoo ànd demesal kon xam nga ne loolu yàgg na donc dafa am loo xam ne boo amee discipline am kilifa yu la yar teg la ci yoon bi nga xam ne nii nga war a doxee nii nga war a demee dafa am loo xam ne boo ko jikkawul doo ko wane. waaw kon si loolu am na solo bu loolu weesoo Garga Mbossé di jël ki nga xamante ne mooy Moussa Ndoye Moussa Ndoye année yi mujj yi mu nekk di benn dynamique bu bu extraordinaire nekk mbër moo xamante ne tey au niveau de la bagarre yokk na xeex bi daal di perfectionné wu mais tamit mu doon mbër mu os comme ni nga ko faral di waxee tey combat boobu na ko gisee. Euh, xam nga combat Moussa Ndoye Garga Mbossé combat bu neex la ndax Moussa Ndoye am na leen lu mu doon séentu Garga am na leneen lu mu doon séentu waaye gis nga làmb loolooy tax nit ñi daje waaye dama ne la combat Moussa Ndoye Garga Mbossé yaakaar naa ne combat combat du ko dàq te combat bu neex lay nekk ndax kii teg ki di la fekk si ngay ngay ngay do droit ke di jeli combat bi dana neex sëñ ñom ñaar buñu xexé nga yaakaar ni kan kan la avantage. non non garga moy avantage da Moussa Ndoy gauche lay tek di xat ci droit di dóor te garga bala droit Moussa Ndoy ñew dana ko gis te boba combat bi gëna neex. buñu bëré ñom ñaar euh garga ko dakk bëré nit mën am safara bërem des mais bu dé ci côté bëré rek ak lima xam ci garga man sama wax la wax de ak lima intéressé man gargaa ko dàq bëre ko su musa ndoy la lay wax ni de neexuta ñeme de jamono ji déggoo de xam nga dafa am lo xamne mënu mënuñu ko wax léegi ni ndax combat bi jage jage jage na wul mais luma la wax bëgguma ko waxal dama bëgg luma wax di wax lu concret man lima xamé xamee garga la wax xam nga keneen ku toog ak Moussa Ndoye dina Moussa Ndoye dàq bëre mais man garga mi ma xam and ak mom bañuy goné and ak mom di ramper and ak mom yóbbu ko mbapat and ak mom yóbbu ko arène bi ànd ak moom ba mu bëyëg saalum saalum ànd ak moom ba mu les deux te lima lay wax ni tungulu tew ni natal kon garga la xam dama la budé beure garga ko dàq beure wa mais buñ sétlo dafa melni ni garga xeexam dafa xawa a lan li li li ñu seetlu Moussa Ndoye aussi dafa melni mo gëna gën njaxlaf ci xeex bi ñom ñaar buñ ñu xam nga combat bu ne ak nokoy préparer préparé Moussa Ndoye fi mu toll ne nañ ko garga ngay jël mu dem wuti volume garga atan nañ ko Moussa Ndoye ngay beure mu dem liggéey souplesse mais dama la Lamb lima ma ci mëna wax te mu ma ba wër moy bis bu kenn ku ne làqu suruq ba sumeeku ba baba bama état de forme boba boma laaje ma wax la ki daal. wa ko si lol amna solo bu lol wesso ñu daali wax ci le grand champion Moussa Dioum euh, mu nekk sa écrit nga koy tagat euh, ya ko préparer and ak mom ci takusan bu ne tay euh, mu mom tamit bim doon dogo dug ci lamb de 2004 à 2008 mu nekkon ci dynamique de victoire ba extraordinaire. waaw mooy mu dem benn moment boo xam te ne tamit tolof tolof yi bëri na ñu nekk di posé wu question euh, dem ba ñu bëri sax naan dafa jël benn volume boo xam te ne méngoowul tey ak ak poids normal am tey tolof tolof yow ak situation bi mu toll nan nga ko jàngatee. Euh, xam nga volume bi mu jëloon xam nga xale buy doog a dem États-Unis wala ñu dégg la ne yaa ngi dem États-Unis boo fa demee te amoo alimentation amoo koo xam ne mën na lay teg ci yoonu baax mën nga indaal loo xam ne doo ko soxla yaa ngi dégg. Euh, États-Unis ku fa dem la plupart bo xefee da nga jël volume bo xamné yow sa bop bo ñëw Sénégal di nga bo ci bolé boolewul lén lu ci bokul yaay dégg te gis nga dynamique gu mbeur sa dépend ci waxalay rek ndax gis nga cité bi mi jël sos ñu ko doon wax moom Moussa Dioum waye Yalla moy défé nonu lamb lamb kenn ku nekk nga war ak bëril mën nañ la wax ak diw ak diw bañ ne suba avance bi combat ba yaaxu ko keneen lamb mel nonu té lamb gis nga bokoy dund da ngay nangul li am ak ndogol gi am ak boo nekkee sportif xam na lii la yàlla war a dogal ci yow lii la yàlla war a teg mais man nee naa la quatrième quatre ans yi Moussa Dioum toog bañ jëm cinq année neexul kenn koo xam ne yaa ngi tàggat sa élève même kii jàngale day bëgg élèves yi mu jàngal chaque fois classe bu ñu jëm jël fa pay loolu moo am solo man nag ñi may tàggat chaque fois bëgg naa jëm ci kanam gën a avancer gën a yokk waaw coach boobu dañ dem au fur et boobu bis Moussa boo xamante ne day day taxaw attentiste xeex bu xeex bu nga xamante ne xeex bu xeex bu doon gis ci moom gisatuñ ko moo tax sportivement lan moo waral changement bi. xam nga damay bañ xale yi yaakaar ne Moussa pare na Moussa Jum lu may liggéey ak mom duñ ko wax nit mais dañuy xaar ba combat taxaw ñu do ko gis ndax amna programme bu muy liggéey sal amna benen programme bo xam gudd lañ koy liggéey donc damay bañ xalé yaakaar mi ngi ci ruq wala dafa tok benn place liggéeyul mais Moussa la muy liggéey fi mu toll nii bu ñu demoon léegi koy fekk sal wala ñu dem léegi kërëm ñu ne ma nga géej dafa am programme parce que dafa am lo xam ne liggéey ak nit da koy jox programme bu heure contact jotee ba nga xam ne yaakaar nañ lu taxaw mu doog ñëw nag la ca des nag man maa koy mottali waaw loolu am na solo parce que boo gisee ñu wax loolu gis nañ digganteem ak ama neex dernier combat am donc xàmmeetuñ ko dañuy ñëw gis mu Dioum boo am teen tey du xeex day taxaw xaar mu changé sur tous les plans tey soppeeku boobu lan moo ko waral. xam nga combat bu ne ak ni nga koy bëree ak combat bu ne ak la nga indi ak combat bu ne ak ne euh, xoolee pante bi mu nekk am na mbër yu bari yoo xam ne jaar nañ fa. am na ñoo xam ne sax ca saase foofu lay toog ne bàyyi nañ bëre te teewul bu xëyee bu ñu xëyee nga gisaat leen ci làmb ji maanaam làmb ni mel gis nga làmb mën nga koo ko tey li nga décortiquer nekk net nga décortiquer ko mu am tuuti fay téeméeri nit topp sa gannaaw ne diw moo fi waxoon ne diw moo fi wax ne mais dama la actuellement fi ñu toll nii état bi ñu toll nii musaa am na programme bu muy liggéey musaa am nee naa la combat bi ñu doon waxaal yi ci bëri dañuy tourner jël keneen jox ka ka kay manager mbër moom moo ne ko bul jël diw ndax diwa la gën a neexi loxo diwa la dàq bëre diwa la jiitu ci làmb loolu tax combat mi bari di yàqu loolu tax mu naqaree amal combat ma ne la avance bu ne man dégg naa ko mbay jàll li may wax nii mi ngi may dégg avance bu ne promettre nañ ñu ko mais xam nga li ma la rek mooy bu yàqu di yàqu ci mbër mbër mi bëgg a bëre nekk athlète sa famille yaakaar ci yow nga toog quatre ans di joxe dépense te bëri woo xam nga loolu metti waaw coach loolu am na solo mais bu loolu weesoo tamit comme nee nga am na benn euh, travail boo xam te ni yaa ngi ci liggéey ak moom mais dangeen koy def loo xam day da ngeen a koy nëbb mais bu loolu weesoo tey ay naataangoom potentiel adversaire ñeen nga na mën a bëreeg ñoom fi mu toll nii non xam nga bari na ndax xam nga koo wax rek mu ne la du ma bëreeg diw koo wax rek mu ne du ma du jël diw mais nee la Moussa Dioum ay adversaire moom ci moom warul toog di tànn peut-être retard bi tuuti moo tax mais ay neesa ngi fi xam nga malik ñaa ngi fi xam nga dafa am naata nga bu ma delim sax dama du yoon ma koy may may may wax mais comme dañuy analyser lo xamne ay ay ay naata ngom lañ nañ nañ junj li rek li ci des ñu denc ko ci suuf waaw. <laughs> waaw doguma la mais malik ñaa nga jàpp ni disul non bëre bi nek suñu yaram ak bëre bi mën ak loxay neex ñam ak li ñuy de li ñuy liggéey te gennagul nañ dem ba ci kanam parce que ñun kuñ ñu jox ñu jël bima la limalé né soxla nañ diw kon donc xam nga ne amatul lu may tiit kon xam nga ne am na ruq bu ñu nekk di liggéey te fi fii nga ma toog nii mën naa laa gunge nga génn ma génn dem fa may liggéeyee waaw ndax dafa am liggéey boo xam ne programme spécial la pour moom waaw loolu tax ma ne la soxla nañ diw parce que dañoo war a waat suñu bopp parce que dañoo retard woon da ngay xool fi ñu jaar roog lax ak niñ ko rafaalee yaa ngi dégg ñu ne déetawaay xoolal tonnerre musta laal suuf donc dafa am kàngam yoo xam ne fi mu toll leen di sóoraale ba booy bu leen nar jël ñu ne noonoo kii teg ko suuf waaye ñun dama ne la bu mooy tànn man di tànnal Moussa combat bu ñor xomm laa koy tànnal bu saf sàpp laa koy tànnal waaw. kon mun na jàpp ne procès adversaire Moussa am na problème yéen nga koy waajal loo xam ne du ko attan. moog Malick doon dama ne la làmb ñun làmb la ñuy def làmb lañ gëm làmb lañ xam làmb ku ko nar yàq yàlla na nga yàqu ñun làmb lañ bëgg te làmb aussi boo xoolee Sénégal bu doon 1000 pour cent tamit 900 yëpp moom lañ bëgg waaw dañ naan dafa bëri problème dafa bëri làmb bëriwul problème parce que làmb doo gis mukk biir géew bi am problème yaa ngi dëgg bu ñu génne nag xam nga munoo canaliser monde entier bi yëpp wala nga naan lii lii non yàlla moo. mais nee la coow li ci Moussa Dioum tey bu doon yàlla may na ko sax heure bii mu nekkoon te leneen mën na ko ci dal peut-être yàlla moo dogal lii trêve bu ndaw bi am parce que ay morom yi jaar nañ ci bu suqalikoo ba ñëw ba baa taxaw li ngeen gis ki Moussa Dioum